إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور عباد الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون من بعد الموت والإنسان له خمس مراحل المرحلة الأدم قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ومرحلة الحمل قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات صلاة ومرحلة الدنيا قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ومرحلة الدنيا هي دار الامتهان والابتلاء قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى في مرحلة البرزق ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون والمرحلة الآخرة عباد الله قال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ويجب الإيمان بالفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom ab jullit dafa war fu mu toll di sant boroomam subhaanahu wa taala ñu ngi seede ne moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu moom dong yeyoo ñu koy ragal moom dong yeyoo ñu koy yaakaar moom dong yeyoo ñuy sukkandiku ci moom jalla wa ala ñi ngi seede na muhammad jaamam la woon yenentam la woon ba mu yónni ci ñun yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ku ko bëgg ku ko nang ku ko ku koy roy ba ila yawmi diin gannaaw loolu mbokk jullit na ngeen ragal yàlla ni seen boroom yeyoo ngeen ñu ragal ko ko te bu leen dee mukk lu dul ne yéen a ngi deeyaale jébbalul seen borom mbokk dee googu nga xam ne yéeféer ak jullit bokk nañ ci dëppoo ay mooy bépp bakkan dana masa dee doonte ne ne fañ wuute mooy lan mooy xew gannaaw dee sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne su ngeen dee ba pare nag yowmal qiyaama lañ leen di fay seeni jëf koo xam ne musal nañ ko ci sawara tabbal nañ ko aljanna ku mel nii day mooy ki texe xam leen ne dund àddanu dund àdduna gi du dara lu dul bànneex boo xamee ne nii dafay naxaate rek ay yéen doomu aadama yi ñi ngi dund jamono ji mooy jamonoy alternance mooy benn nguur nekkoon na fi sunu borom yàlla subhanahu wa taala jeexal ko daal di indi nguur gu bees mbokk loolu yàlla moo koy def ñooñu fi nekkoon tey ñu jël seen pouvoir jël moyens yañ leen joxoon yow it war ngaa laaj sa bopp man day maa ngi nii ci dunduk àdduna ana fan laay mujj mbokk jullit fi nga xam ne fa ngay mujj moom boole mi doomu aadama mooy da ngay mas a jeexal sa dund gi waaw su ma ko jeexalee nag fan laa jëm ba nga ko jeexalee fa nga jëm yaa ngi jëm ci li ñuy tuddee bisu àllaaxira àllaaxira mooy lan àllaaxira mooy lépp loo xam ne day xew gannaaw bi nga deeyee ay kon doomu aadama bu nekk àllaaxiraam fan lay commencé fa nga deeyee sa kaw lan la biir oto ba la service ba la fu mu mën a doon foo dee rek xamal ne sa àllaaxira tàbbi na doomu aadama am na juróomi jaar-jaar jaar-jaar bu njëkk bi sunu borom mi ngi ñu koy nettali xanaa doomu aadama fàttalikoo bi nga nekkagul dara bis nekkoon na sunu borom bindoon na la xamoon na sag ruux waaye defaragul sa jëmm hal ata ala al insan xiinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura borom bi ay yonent yu bari waxoon na leen da ngeen am doom sàngam am sët sàngam te booba binduguñu seeni jëmm amma loolu mooy marxala boo xam ne jiitu na saw ah yaram di sosu ñaareelu marxala bi mooy ban mooy bi nga xamee ne yàlla mi ngi lay defar sa biiru yaay ba nga amee ñeenti weer ak fukki fan sunu borom jël ruux googee daal di koy boole ak jëmm ji nga nekk fa la soob yàlla juróom benn weer juróom ñeenti weer wala lu ëpp lool gannaaw ba sunu borom yàlla génne ñu génne ñu xamuñu dara. mu indi ñu ci kërug nattu gii di àdduna may ñu xel may ñu ay nopp may ñu ay bët ngiree nattuñu ana kan mooy gën a rafet jëf comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxe moo bind dund bind bis bi ngay dee diggante boobu nar a nekk ñaar fukki at wala juróom fukki at wala juróom ñaar fukki at wala lu yàlla soob diggante boobu sunu borom mi ngi ko def ngir nattu la ci loo xam ne mooy nara a dogal mooy nar a feeñal ñaari dund yooyu nar a ñëw sa gannaaw lépp moom yaa koy sàkku ci ñetteelu dund googu ñetteelu dund bi nga xam ne mooy dunduk àdduna am na beneen buy ñëw ci gannaawam te mooy dunduk barzaq doomu aadama bi heure boo xamee yaa ngi teqalikoo ak dund yaa ngi dugg ci li ñuy tudde barzaq mooy étape bi nekkoon ci jamono bi ngay dund ak jamono bi nga xam ne mooy alaxira moom la borom bi di wax ne wa jaat sakaratu lmawti bilxaq zalika ma kunta minhu taxiid lii di sukuraat mi ngi nii ñëw indil na la dëgg lan mooy dëgg mooy dee googu nga xam ne kenn mënu caa mucc lan mooy dëgg mooy malaaka yooyu nga xam ne ñi ngi ñëw wër la bu doon ko baax nga muy ñu tedd ñu rafet lool nara jël sa ruux bu doon ab saay-saay nga muy ñu ñàng lool ñu tar lool nar a jël sa ruux ñooñu mbokk ñoo lay jël daal di lay yóbbu fi nga xam ne mooy li ñu tudde barzak di sa bàmmeel gannaaw loolu am na juróomeelu atta étape te mooy étape bu mujj bi mooy heure boo génnee sa bàmmeel bu keree boobu bis boobu beneen bis dootul am gannaaw ba bis la boo xam ne dafay sax continuer ba faw beneen étape du am gannaaw alaxira waaye mbokk jullit allaaxira boogee ak a ñoo jege ak a ñoo jege lu tax mooy doomu aadama dara nekkul digganteem ak allaaxira lu dul mu dee ca mbokk dee ak a ñoo jege ni ngay doxe ci mbedd bu mujj sa dàll dagg noonu la la dee jege loolu kon moo tax ba nit ki xellu war naa góorgóorlu heure boo xamee ni nii mi ngi jël ay wëlbatiku yoo xam ne day am ci moom na doon daa jóge ci ay nelawam na doon daa xëy wala daa gont toujours muy bàyyi xel bis bi muy dajee ah ak boroomam subhanahu wa taala loolee moo tax ba nit ki nga xamee ni nii aji xellu la fu mu mën a tollu day góorgóorlu di bàyyi xel lan mooy nekk sama gannaaw bu ma deeyee mbokk gis nga boo deeyee ba nga xamee ni nii say mbokk jël nañu la sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na bu doon te ne waaju baax nga yaa ngi yuuxu naan ay waay gaawe leen ma gaawe leen ma ngir bégal ya nga xam ne malaaka yi bégal na la te la nga xam ne moo lay xaar ca bàmmeel boobu nar a nekk benn jardin ci jardin àjjana yi lu mbokk yi gaaw gaaw rek xem nañu loolu yal na yàlla boole ñu ci ñooñu waaye mbokk julit su doon jaaroo fa neex yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na heure bu ko ay mbokkam defaree ba pare jëm ca bàmmeel dana yuuxu yuuxu yoo xam ne nii ay fu ngeen ma jëme ay bu ngeen xamoon fi ngeen ma jëme ba yonent bi alayhi salaam nee na nit ak jinne day bu ñu déggoon yuuxu yooyu sax dañuy dee loolu kon loolu moo tax ba doomu aadama bi sa dund gi ni nga ciy kër kër yi sa kemtalal kàttan di tabax ay kër di ut njaboot di sakku ay taar lépp lu la dal ci feebar nga faju ay waay xamal ni aka tuuti par rapport ak la lay xaar ci bàmmeel waaye aka tuuti ak la lay xaar par rapport yowmal qiyaama te sa jataay ba ngay dara am sa bàmmeel yaa ngi koy sàggoo ci dund gu gàtt gi dund àdduna na doon jataay ba bu tedd la wala bu tedd di la sunu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daana def heure bu suulee benn doomu aadama ay julit daani ne ay yéen mbokk yi istaghfiru li axiikum wasalu lahu tasbit fa innahu alaana yusal jéggalul leen seen mbokk julit bi ngeen ñaan yàlla saxal ko ndax léegi ñu commencé ko laaj sunu borom yàlla yónnee ko ñaari malaaka malaaka yi buñ ñëwee duñ ko laaj yow njaago nga woon am arab nga woon duñ ko laaj ndax yow ban association nga bokkoon ban tarixa nga bokkoon duñ ko laaj yow góor nga woon wala jigéen nga woon lañu koy laaj mooy yow kan moo nekkoon sa borom bi nga doon jaamu lan moo nekkoon diine ji nga doon dund lan nga doon wax ci yeneen ki yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ku mel noonu yàlla subhanahu wa taala moo koy dëgëral rafetal tontam yal na yàlla boole ñu ci ñooñu amma bu doon te ne ku jaarul fi neex yàlla su ko malaaka yi laajee ku doon sa boroom danaan hë hë ak man daal xawma lan moo nekkoon sa diine hë hë man daal xawma loolu naka yonent bi alayhi salaam tonto yonent bi alayhi salaam nee na daanañ ko daañ ko dóor dóor boo xamee ni nii yuuxu ka muy yuuxu lépp lu waroon armeel yi dana ko dégg ba mu des nit ak jinne looloo tax yonent bi alayhi salaam daana wax ni lawla an tadaafanu la daawtu allah an yusmiakum min azabi alqabr su ma bañul woon kenn ci yéen mbokkam dee mu ne du ko sun mukk kon doon naa ñaan yàlla mu may leen ngeen dégg ci mbugal yi nga xam ne mooy bawoo ci bàmmeel mbokk li mooy dégg bi nga xam ne sikk amu ci amma boo demee ci place yu bari ñëwal fii ci Sénégal am na benn dëkk boo xam ne nee na ñooy malaaka yi laaj ñu ci bàmmeel xamuñu fan la féete ndax yàlla musu leen fa yónni ay képp koo xam ne suul nañ la fa ci àjjana rek ngay nekk ba ilaa yawmi diin wallahi mbokk loolu suñuy wax rek la nañuy delluwaat gëmaat lañu suñu yonente alayhi salaam wax doomu aadama bi na doon gaynde moo ko lekk doomu aadama dafay exploser ci avion lu mu mën a doon suñu borom bi nga xam ne innama qawluhu ida arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun lépp lu mu bëgg nga naan ko nekkal mu nekk dana ko dajalawaat daal di koy laaj la nga xamee ne nii moom la ñuy laaj mboole mi jaami yàlla gannaaw loolu mbokk julit nañu xam ne lii nga xam ne moom mooy mbugulu bàmmeel sunu borom yàlla subhanahu wa taala dana ko saxal ci ab jaam ca na nga xamee ni nii noonu la bakkaaram ya toll doomu aadama yi am na ñun ciy mbugal guddi gañu fanaanee ci bàmmeel yëkkati ko am na ñun ciy mbugal ñetti fani bàmmeel yëkkati ko am na ñun ciy mbugal weer am na ñun ciy mbugal at am na ñoo xam ne keroog bañ duggee bàmmeel ba ilaa yawmi diin seen mbugal ma du dagg guddeeg ba cëkk noonu la ko sunu borom subhanahu wa taala netti leen ci firawna ak i mbokkam annaaru yuraduna alayha huduwan wa ashiya wa yawma taqumu saatu adxilu ala firawna ashadda al azab mbokku lii nga xam ne mooy place ba mel ni ngi noonu képp koo xam ne dugg na fa sunu borom dana ko won fam nar a téere ji ca aljanna su doon tamit ne jaar na fa neex yàlla wala borom bi dana ko won fam nar a téere ji sawara su doon te ne jaarul fu neex yàlla gannaaw ba mbokk julit am na benn bis bu màgg boo xam ne mooy ñëw borom bi jàll wa ala dana sant malaaka israfil mu ëppal ko ci li nga xam ne mooy béjjën ba doomu aadama yi ñépp génn seeni bàmmeel gannaaw ba leen seen borom yàlla defaraatee bañ mel ni niñ meloon bi ñuy dund ci kaw suuf ñoom ñépp ñu génn uraatan usaatan xurula ñépp def yaramu neen ñépp def li nga xame ni nii moom mooy tànku neen lépp luñ mas a dagg ci ñëw ci yow mas a dellu siwaat ba sunu yaay Aïcha doon laaj yonent bi alayhi salaam waaw ndax góor ñi ak jigéen ñi ñoom mboole seen ñooy ànd sunu yonent alayhi salaam ne ko ay Aïcha la nga xamee ne mooy ñàkkaayu bisu penc day gën naa màgg ci ngay xalaat naan ndax man góor laa dendal wala jigéen laa dendal sunu borom yàlla mbokk julit dana ñu dajale ci benn place boo xamee ni nii dana tàllal suuf montagne yépp dem nañu xur yi dem nañu borom bi dajale ñu ci place boo xam ne ku nekk yaa ngi fay am loo teg say tànk sunu borom wàcce jant bi la nga xamee ni ni mooy doomu aadama yi ku nekk xaal ba nga nekkoon am na ñoo xam ne daan ñàq ba seen kosten am na ñuy ñàq ba seen oom am na ñuy ñàq ba ñàq bi ngalaab leen ci seen gémmiñ ba seen catu kanam rek mooy seen ci kaw ñàq boobee sunu borom yàlla dina keral ay jaam jaam yi nga xam ne dañ koo déggaloon da nga leen woo keral leen ci la nga xam ne ni mu may keru arsh rahman te bis boo xam ne nii guddaay ba dana nekk juróom fukki junni at loolee sunu borom waaye fol ko ci ñoom ba yonent bi alayhi salaam nee na day mel ne diggante takkusaan ak tisbaar yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca ñooñee bu ko defee loolee bu amee mbokk julit sunu borom jàlla wa ala da ngay gis ne dana ñëw atte li nga xamee ni mooy ay jaamam gannaaw ba nga xamee ne yonent bi alayhi salaam ñaan na ko bu ko defee borom boobu bu dee ne ñëw na malaaka yi fekk wàcc nañu dana ñëw dajale jaam yi atte la nga xamee ni nii mooy digganteem ak jaamam ca lam farataaloon ci ñoom waaye itamit atte la nga xam ne mooy diggante jaam yi ci seen biir loolu la yonent bi alayhi salaam doon wax mën a xam ngeen ki perte ah yow yàlla yónni loolu day yàlla ak yonentam ñoo ko xam mu ne ki perte dëgg-dëgg sama xeet mooy ki defoon la war digganteem ak boroomam ay julleem mat na ay kooram mat na ak makka ak zakat lépp mat na waaye jaami yàlla yi tooñ na kii xas na kii tuur na deretu kii ñu jël ay tuyaabaam di ko séddale di ko séddale ba mboolem ay tuyaabaam jeex ñu daal di koy sëf bàkkaar yi ña ñam tooñoon booleeg loolu tabbal ko sawara yal na yàlla subhanahu wa taala musal ñu ci loolu mbokk julit nañu xamee ne it la nga xamee ne moo fay am di ak ràmm goo xamee ni nii ci borom bi lay bawoo loolee am na doomu aadama yoo xam ne ci seen réer mooy bis penc day dafa ñàng kon man abubakarin saddiq laa yaakaar ngi mu xetti ne ma yowmal qiyaama am keneen ku dagg ca làgg nga ne déedéet man Ousmane la yaakaar keneen man imaamu Malik keneen Bukhari mbokk loolee suñuy wax rek la amaa li nga xamee ne moo ak ràmm du am abadan lu dul ne sunu borom yàlla moo cay joxe ndigal moo koy jox ku ko soob ku mu soob jëmale ko ci ku mu soob looloo tax niñ koy jaamoo bañ koo bokkaale dara noonu rek lañ ko war a yaakaare adduna ak allaaxira amma keneen koo yaakaar ne bii moom muy ràmm ndax yow am nga garantie ci ne moom sax day dem àjjanam déet ak même bu doon am nga garantie kan moo lay xamal ne yàlla dana ko jox ndigal loolu moo tax ba mbokk julit sunu xol yi nañ ko wékk sunu boroom lépp lu ñu yaakaar ci àdduna ak alaxira buñ ko yaakaar ci kenn ku dul yàlla waaye lépp lu ñuy ragal mu teggee ku ñu àdduna ak alaxira buñ ko yaakaar ci kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla musal ñu ci mbugalu àdduna ak alaxira yal na yàlla may ñu teraanga àdduna ak alaxira may ñu mujj gu rafet defal ñu àjjana sunu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يوم القيامة يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ay yéen mbokk julit yi ñi ngi santaar sunu boroom subhanahu wa taala mi nga xam ne ci baaxam ak yërmandeem leeralal nañu lépp lu ñuy xaar gannaaw ba nga xamee ne dee nañu mbokk heure boo xamee ni ni àllaaxira ñëw na sunu boroom yàlla nee na suuf dana yëngatu ak yëngatoom génne lépp luñ mas a suur ci moom ci ay nit ci ay bàyyuma ci lum mën a doon suuf dana ko génne yowmal qiyaama doomu aadama yi jaaxle ma suuf lan moo ko ñeel bu ko defee borom bi subhanahu wa taala nee na lépp lu ñu masa des ci kawam dana ko nettali sa kër gi sa boutique bi jàkka ji yoon wi loo masa des ci kaw suuf suuf mi ngi koy enregistré te dana ko nettali yowmal qiyaama su ko regee loo masa def ci lu baax ak lu mu tuuti tuuti pay ba ma ngi lay xaar loo masa def ci lu bon ak lu mu tuuti tuuti fay mi mi ngi lay xaar mbokk bis bu màgg boobu mooy bi jara waajal mooy bis bi nga xam ne ñi mooyoon yàlla tooñ bokkaarekat yi daañu màtt seen ñaari loxo ey waay aka nee xool ñu topp yonent yàlla bi amul kenn kuy màtt loxoom naan aka nee xool ma topp jóob wala sekk wala kenn ku mën a doon lan ngay wécc yowmal qiyaama ay aka nee xool ma topp yonent yàlla bi su doon toppoo ko ay waay aka nee xool diw mi nga xam ne moo doxal sama digganteeg sunna teg ma ci yoonu jànkote aka nee xool ma bañ koo topp moom day réeral na ma te seytaane dafay doon kuy fañ doomu aadama mbokk yoomal qiyaama mi ngi noonu xam leen ni la nga xamee ni nii mooy la la fa am sunu borom yàlla subhanahu wa taala dana dajale ay jaamam képp kenn ci ñun dana taxaw ak moom daal di koy wax atte ko bu dee ab jullita dana ko sutural jege ko xamal ko ay bakkaaram gannaaw ba baal ko jox ko téeréem ci day jooram mu daal di texe jëm ca ay mbokkam yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca amma ku jaarul woon fa neex yàlla sunu borom yàlla subhanahu wa taala dana la toroxal ci kanamu nit ak jinne wan na jaaroo woon fu neexul yàlla mboolem ña fa nekkoon boole la ci am rëbb ay yéen mbokk julit bokk na ci étape yu rëy yoo xam ne mi ngi ñuy xaar yowmal qiyaama li nga xamee ne nii moom mooy sawara sunu borom yàlla dana ko indi mu nekk loo xam ne mi ngi jàjji loo xam ne nii yonente ku dul yonente ñoom ñépp daan tiit ca loolee nga xam ne moom lay def yonente bi alayhi salaam wax ñu ci lu tiit la lool nee na yàlla dana ko wutal juróom-ñaar fukki junni jàppukaay jàppukaay bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo ciy téye bu ko defee mu génn am baat bu génn ci moom di tëkku jaamu yàlla yi ña nga xam ne dañ ci doon bokkaale ña réeréeru woon bañ a topp yeneen ci yàlla bi ñii ñépp sey li nga xam ne mooy sawara dana fudd jëm ci ñoom sunu borom yàlla teg ci kaw li nga xam ne mooy siraat borom bi ne wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya amul kenn ci yéen góor wala jigéen amul kenn ci yéen lu dul ne dana jaar ci biir siraat su ko defee ñu yàlla dogal ñu nar a tabbi sawara ñépp tabbi biir sawara yal na yàlla musal ñu ci ana ñoom ñooy mucc keroog ndax mooy milliardaires yi ndax mooy ñu santoon si wala mbàkke ndax mooy arab yi wala nit ñi ñuul ñi sunu borom yàlla ne summa nunajji allazina taqaw wa nadru zalimina fiha jisiya ña ragaloon yàlla ñoom rek lay musal looloo tax ba yow jaamu yàlla bi xamal ne la lay musal ci mbugalu yàlla la lay tabbal aljanay borom bi mooy la nga xam ne moom mooy at taqwa allah mooy ragal yàlla jalla wa ala moytu leen lépp luy jëme sawara la ca gën a màgg bokk na li nga xam ne mooy làmmiñ ñi ak li nga xamee ne moom mooy fay yi nañu góorgóorlu xam ne dara neexewul na aljanna ngal la waay benn bànneexu àjjana bu mu la ko xañ waaye dara tarewul na sawara ngal la waay benn bànneexu àjjana bu mu la ci yóbbu nañu góorgóorlu waat delluwaat ci sunu waxi borom ba subhanahu wa taala borom bi nee na ragal leen bis bi nga xamee ni ni da ngeen ciy dellu ci seen borom su ko defee ku nekk ñu fay ko lam doon jëf te loolee kenn du leen tooñ mbokk bis boobu kañ la bis boobu amul kenn ci ñun ku ko xam kii nga xamee ne nii moom mooy Abdullah ibnu Omar yonent bi alayhi salaam dafa téye ca mbaggam ya ne ko ay sama doom man de maa ngi lay dénk na nga nekk ci àdduna mel ne rek benn immigré wala koo xam ne dafa jaar ci yoon di jàll ibnu omar gannaaw ba yonent bi faatu bu daan jottali xadis boobu bokk na lu mu ci daan teg ay yow mi xellu heure boo xëyee jàppal ne ngoon mën na la fee bañ a fekk heure bu ngoon jotee jàppal ne suba mën na ma fee bañ a fekk lii mooy la nga xamee ne nii ki am projet ci àdduna ki nga xam ne dafa yaakaar avenir u ay doomam wala ëllëgi si biir ngallaawaay na ci sóoraale fu mu mën a toll ne am na loo xam ne mi ngi may xaar sama kanam ca mën na maa ñëwal fu nekk comme na ko waykat waykat bi di waxee doonte ne la mu wax baax na waaye nam koy waxee comme koy waxe baaxul mooy déedéet mi ngi ñëw xooma fan la xooma kañ la xooma naka la may dikkee mi ngi noonu kenn xamul fooy dee. kenn xamul kañ ngay dee kenn xamul ci lan looy dee kenn xamu ko loolee mbokk gannaaw dee googee su dee ne tey ji dañoo gis ñoo xam ne góorgóorlu lañ ba def alternance tey ñi ngi yor li nga xam ne mooy pouvoir mbokk pouvoir boobu fan lay mujj mooy ci kanam tuuti yàlla subhanahu wa taala nangu ko bar ci kanam tuuti yàlla nangu mboolem pouvoir yi nekk ci penku ak sowu daal di la lépp ci loxoom daal di ne li manil mulkul yawm ana kan moo am nguur tey kenn du am nguur ñépp def ay nekk ay jaam ci kanamam wa in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rahmani abda ñépp nekk ay jaam def yaram ne ci kanamam moo tee xool ku ko neex mu wadd ko wallahi xatta yonent yàlla yi bu ñuy dekk yaramu neen la ñuy dekkee yonent bi alayhi salaam nee na ko yàlla di jëkk a wadd mooy ibrahima alayhi salaam kon li nga yor lépp day jeex tey ni nguurum ñi fi nekkoon jeexe léegi nag bu doon jaar nga fa neex yàlla te góorgóorlu jaar ci sunu borom yàlla mi ngi lay xaare nguur goo xam ne du ràpp ba faw wa ida raayta samma raayta naiman wa mulkan kabira da boo xoolee aljanna da nga fay gis la nga xam ne xéewal yu amul fu mu yem waaye nguur goo xam ne gu màgg la amul fu mu yem yonente bi alayhi salaam ne ki gën a tuutale kër ci àdduna ci àjjana mooy ki nga xam ne am na nguurug àdduna gi fukkam loolee kon mbokk loolu la ñu war a campagnal lii la ñu war a xeexal lii la ñu war a jógal waaye wallahi boo jaarul woon fa neex yàlla ak loo mënoon a am ci àdduna yaa ngi nar a dem ci prison boo xam ne perpète la ay abadan ci kaso jahannam boo xam ne doo fa génn ba faw loolu kon mbokk képp koo xam ne nii xellu na nga la way na bàyyi xel ca nguur gu màgg googee nga xam ne du jeex muy aljanna waaye na bàyyi xel ci kërug naxaate gi muy àdduna lenn lu fi nekk bu mu tax mu dox sa digganteeg jaamu sa boroom waaye it lépp anu noo koy wute mooy ci ñaari mbir dong mooy jébbulul sa boroom yaakaar sa boroom toroxlul sa boroom jaamu ko jaamu goo xam ne ci koo koy roye mooy ci sunu yonenti muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla yombal ko ci ñun yombal ko ci bépp jullit yal na yàlla musal ñu ci mbugalu bàmmeel yal na yàlla musal ñu ci mbugalu jahannam yal na yàlla musal ci bépp fitna bu ñu am adduna ak alaxira yal na yàlla defal ñu mujj gu rafet yal na yàlla may ñu la gën ca la ko yonent bi alayhi salaam doon ñaan yal na yàlla musal ñu ci lépp lu ko yonent bi alayhi salaam doon muslu lépp lu yàlla di dogal ci ñu adduna ak alaxira yal na doon yiw yal na yàlla baal ñu baal sunuy waayjur baal ñëpp ñoo xam ne jiitu woon nañu ci ngëm ak ñuy nar a ñëw sunu gannaaw ba ila yawmi diin yal na yàlla subhanahu wa taala musal ñu ci ay cheytaan yal na yàlla musal suñu ay bakkan musal ñu ci ay yéefar yi ak ay munafiquuna yi boole ñu ci ñi gëm ab yonentam topp ko màggal ay sahaabam roy leen wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain